dal leen ak jàmm ñu ànd ak yéen yëri li mboole yéen kaay xëy dëxañ ci seen xët wu njëkk ñu door ko ak journal bi di enquête quotidien mu daal di indi nataalu Ousmane Sonko njiital parti Pastef ak Jean-Luc Mélenchon ginnaaw waxtaan bi nga xamante ni amal nañ ko ni ki démb journal bi nag daal di leen ci kaddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko daat na ko yëkkati moom mi la nag muy xam le ni jamono yi nag jot na ñu daal di xoolaat relation bi nga xamante ni dox na ci ni daat na ko yëkkati journal bi di enquête bokk na ci kaddu yi nga xamante ni moom Sonko daal di xamle muy nag Sénégal noppi na ngir jàppale réew Mali Niger ak Burkina Faso daal di nay jox kàddu ki nga xam ni mooy Jean-Luc Mélenchon mu nag mu daal di xamle ni lu ñeel wàllum koppar di CFA bi nag jot na ñu daal di saafara jafe-jafe bi nga xamante ni diwaanu Afrique ñi ngi koy dundu loolu la journal bi di Walf Quotidien daal di xamle lu ñeel yi yitteem dëgg mooy ñu daal di xoolaat France Afrique maanaam lëkkaloo bi nga xamante ni day dox ci ñaari réew yi mu mel ni rek mu jàpp ni réewum France nag daanaka nag toxalin ba nga xamante ni ma ngi koy am nekkul loo xamante ni luy gënal diwaanu Afrique la tax nag ba ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko la mu bëgg rek mooy ñu daal di joyanti waat lëkkaloo bi dox ci diwaanu euh, France ak Afrique li euh, tax ba 24 heures a di indiwaat lenn ci kàddu yoo xamante ni Sonko daat na ko yëkkati jëmale ko ci Emmanuel Macron moom moom mi nga xam ni mooy njiitu réew bu France journal bi nag daal di xamle ni Ousmane Sonko amul lu ko neex benn yoon jëmale ba ñu teg nañu leen ko moom nag muy xamle ni Emmanuel Macron nag doxalin ba nga xamante ni am na ko daat na koy ñaawlu bu baax a baax loolu la réew mi quotidien daal dëggal indi ab xëtam bu njëkk daal di def ki nga xamante mooy njiital parti Pastef di Ousmane Sonko kaddu ya nga yëkkati na ko koy jëmale ci Emmanuel Macron la nga xamante ni ci wàllum politique mu jàpp ni rek France da seetaan bu baax a baax doxalin ba nga xamante ni waroon na ko am amu ko li ni mel nag da ko daal ba fa ñaawlu yam moom Ousmane Sonko ku wax li wax la ca des ñu dem yëri journal bi di tribune yéene kaay mu daal di indi nag ab nataalam moom Ousmane Sonko mu mel ne rek lu ñeel wàllum LGBT borom a nay xamle ni élimaanu jawriñ yi nag daat nay xamle ni ñeel wàllum borom ñaari tur yi mën nañ ko toléré ci réew mi li ni mel nag du samay kaddu kaddu journal bi la moom la dëxañ ci xëtam bu njëkk waaye nag daat na ci yokku rek lenn ci kaddu yi nga xamante ni moom Ousmane Sonko njiital parti Pastef daat na ko yëkkati mooy li ni mel nag kenn mënu ko accepté ci biir réew mi daat nay indiwaat kaddu yi nga xamante ni Jean-Luc Mélenchon daat na ko yëkkati mu daal di nag dëggal ab taxawaayam jëm ci li nga xamante ni mooy borom ñaari tur yi loolu la journal bi di tribune yéen a kaay daal xamle les échos yéene kaay di des ci boobule waxtaan mu daal di xamle rek jamono yi Ousmane Sonko ko bi daal di dëxëñ ci xëtam bu njëkk ginnaaw yu baree bari daat nañ ko fay waxtaanee bés bi le jour daal di nag desandi moom it ci boobule waxtaan nga xam ni amoon na ni njiital parti Pastef ak Jean-Luc Mélenchon mi bàyyi ko ci diwaanu France daanaka nag kenn ku ci nekk dëggaloon xëcc jëmale sa boor ndax kenn ku ci nekk nag la nga bëgg rek mooy sa réew na muy doxee nag nga man di sàmmonte ak la nga xamante ni moo ca daal di am li ni mel nag moom le leader bu Pastef daal di xamle le journal bi di bés bi le jour daal di dëxëñ ci xëtam bu njëkk lu ñeel wàllum LGBT lu ñeel wàllum contrat yi ak sax dem ba ci li xamante ni mooy lu ñeel wàllum koppar bi di monnaie bi ak pétrole bi ak gaz bi nga xamante ni mu ngi ci biir réew mi loolu yëpp nag njiital Pastef bi Ousmane Sonko daat na ci yàbbi Vox Populi moom indiwaat ab nataala moom Ousmane Sonko ginnaaw kàddu ya nga xamante ni daat na koy yëkkati journal bi nag nag moom daat na koy tuddee lu ñel wàllum africanité moom journal bi daat nay xamle ni Ousmane Sonko nag yëkkati na ay baatu dëggam ci kanamu Jean-Luc Mélenchon lu ñel ci ay ponk yoo xamante ni daat na koy yëkkati kàddu ya nga xamante ni nag daat na koy dëxëñ ci xatam bu njëkk moom journal bi di Vox Populi mooy Ousmane Sonko nag daat nay xamle ni jot na réewum Sénégal ñu daal di koy tëggaat maanaam lépp loo xamante ni ay meññeef la jugee ci réewum Sénégal Sénégal a am ak njeexital rawatina ci diwaanu Afrique gi yëpp ku wax lii wax la ca des ñu dem yëri journal bi di Le Soleil yéenekaay moom li ko yittee mooy lu jëm ci wàllum mbënd mi ak nawet bi nga xamante ni daanaka ni ki démb nag amal nañu ab waxtaan fa nga xamante ni mooy ca diwaanu Diamniadio gouvernement bi jamono yi nag li leen yitteel dëgg mooy naka la ñu def ba fàggu ndox mi nga xamante ni moo fas yéene wàcc ci biir réew mi journal bi nag daal di xamle ni lu toll ñaar fukk ak ñaar ci ay matuwaay daañu ko jël nag fexe ba xeex lu jëm ci wàllum mbënd mi journal bi di daal di nag ni nag élimaanu jëm ñi Ousmane Sonko daat nay xam le ni daañu def nag ab lañ bët maanaam audit lu ñeel wàllum koppar gi nga xamante ni def nañ ko ci wàllum mbënd mi ba léegi nag ay jafe képp la ñu am ñu xayma ko mu toll ci juróom téeméeri milliards ak lu toftal waaye nag mu mel ni boobu ba léegi nag ak saafara amagul ci wàll wi élimaanu jëm yi xam le ni li mel daañu ko audité Sud Quotidien li ni mel la dëggal indi nataalu élimaanu jëm yi di Ousmane Sonko xam le ni rek lu ñeel wàllum mbënd mi nag jot nañu wut ci ay pexe ndax lu tollooko juróom-ñaar téeméeri milliards ak lu toftal lañu ci def te boobu ba léegi nag kenn xamagul naka la ñuy def nag ba xeex lu jëm ci wàllu wile ndax li ni mel daanaka amagul benn njeexital bu ci am waral nag ba Ousmane Sonko muy xamle ni li ni mel daañu ko audité journal bi di Sud Quotidien moo ko daal di xamle ginnaaw conseil interministériel bi nga xamante ni moom la ñu doon amal ci diwaanu Diamniadio ñu jeexale ak les échos yéenekaay yi Abdoulaye Silla moo fas yéene yóbbu ca wàllum yoon ki nga xamante ni mooy Pape Sena ñu jeexale mbokk yi ak lu jëm ci wàllum yoon Abdoulaye Silla moo fas yéene yóbbu ci wàllum yoon ki nga nga xamante ni mooy Pape Sané ak Cheikh Niass le journal bi di Les Échos yéene kaay xamle li ni mu mel ni wàllum diffamation la daal tab mu mel ni rek li ni mel li ko waral mooy wàllum diffamation ginnaaw ba nga xamante ni ab live la Pape Sané daal di amal journal bi nag daal di nay xamle ni moom mi le nag dafa wax ni ab marché bu ñu jox ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Sylla ñu xayma ko ci téeméer ak ñeent fukki milliards ca diwaanu Diamniadio li ni mel nag Abdoulaye Sylla moom nga xamante moo jiite Ecotra nee na nag du ko bàyyi mu sedd ndax faaw doone benn ngir ñu leeral li ku moytuwul diffamation ak li ni mel da nga dugal sa bopp ci loo xamante ni musiba mbàbba kumba rek lay indil